del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yi jigéen danga jox oo oh, di ko sagal di ko si lii laa bëgg ba pare di ko génnee di ko wax Askia Touré da ko wax nekkal nga xoli yi bu fi sax neex na man waxatuma sax waxi or ji mais wax ba Askia wax moo ma waay yow looloo ma daaneel waay looloo ma daaneel barki Seydina Mohamad suñu xol yi toj na góor day sagal jigéen ah yonent bee ko waxoon nañ waxante dëgg nga sagal ko ni naan bu génnee sa day réer looloo ma ray nee na bu génnee day réer waa day réer boo yore sa jabar yàqal doom yaral jabar danga ko yàq ba bu génnee day gëlëm réer dootul xam fu mu jëm day dawaat ñibbi e eh, ngoo yaayay Askia merci beaucoup merci beaucoup pour leçon bi lii dañ ko war a jàngale partout dans le monde góoru sénégalais yeeg Afrique Afrique laax góoru nit ku ñuul ibbi seen bët yi déggu leen li Askia Touré wax fii la mën a yem <laughs> nee na nopp ga su génnee sa day réer way <laughs> ngoy kon GPRS lay doxantoo xanaa <laughs> barki yeneen bi aski yaature glacé nga xol yi xanaa neex lii lañ bëgg jigéen kenn du ko dóor jigéen kenn du ko xas kenn du ko saaka danga ko jëndal or di ko yóbbu Dubaay yóbbu ko ci kër gu am piscine bu am gazon di ko jox jus muy naan tubarkàlla xolam di neex doom bu fa juddoo de doon doom ju barkeel lii la yàlla dogal yonent bi ko njëkk a wax waaye aski yaature yàlla nga gudd fan ku ne amin yàlla na nga gudd fan xol yi féexal nga ko lii rek lan soxla góor guy toog di wax ci jabaram nee na dama ko nopp su génnee sax day réer day réer moo yay réer góor bu la yàqee boo génnee da ngay gëlëm da ngay eh, foo jëm yow kër gu am piscine am gazon e boo ci duggee xoolal da ngay toog yow ñu ne as ay sadda combat kër askiya yàlla leen yàlla dafal cat xol yi féex na man waxuma waxi or waxuma waxi yére dama li jëkkër ji moo ma daaneel yi laa réer góor bu la yàqee boo génnee dangay ngay gëlëm da ngay dee eh, foo jëm yow kër gu am piscine am gazon e boo ci duggee xoolal da ngay toog yow ni as ay sadde combat sax génneewul ngoy kër askiya yàlla na leen yàlla fal cat xol yi fiix na man waxuma waxi or waxuma waxi yére dama ne li jëkkër ji wax moo a daaneel barki yeneen bi askiya Touré galaase nga xol yi xanaa neex lii lañ bëgg jigéen kenn du ko dóor jigéen kenn du ko xas kenn du ko saaka da nga ko jëndal or di ko yóbbu Dubaay yóbbu ko ci kër gu am piscine bu am gazon di ko jox jus muy naan tubarkaal xolam di neex doom bu fa juddoo de doon doom ju barkeel lii la yàlla dogal yonent bee ko njëkk a wax waaye na nga gudd fan ku naa min na nga gudd fan xol yi féexal nga ko lii rek lan soxla góor guy toog di wax ci jabaram nee na dama ko nopp su génnee sax day réer day réer mooy yay réer góor bu la yàqee boo masque or laa lay tegal nii de lii balaa jéeg bi di génn. mais moom bis bu visu plastique maa leen koy njëkk a ma ci réew mi ku mën na def. waaw xawal gestu tuuti. jamaa des koy wane. ah waaw. de Sac. diamond boat shop. Sakalaay la ka diamond. li nga xamee ne. réyoo réyoo. aki korona fi lay andoore faati weddu mooy wa xam ja jaxate ee cala waro maam jeroone ko jeru warel ma ndapale cala daw basu mbako mbosulo jotaay subotaay defo Bonheur. الشيخ Serigne Saliou moo am jàmm mu ko dëgëral mu diinu fii gassanaa yi kuntu fidaaha yuuti falaaha lekk man maa la taaj parce que amoo taaj te nit foog man ku muy waxal doo dem dootu la sama maam jëlee masaka bi ci wërsëg bi daf ni la fii daara la toog rek ngay def nga tëj sa sa atelier waa ay ku ci bokkul bilaay naan du talote waa xel du ca sañ ndox ci ma xalaat yoo tax ma du ñëw naa indi feeñal yaa waa ay ku mooy li ma am sama gàncax sama takk du ma ko wan fii sama borom kër ak ay xayta sëñ Tuba wax ci jës bu ak mu waxee du naat wax doomu jën wal wi daan fi jëlee di leen di waaye itam mu taxoon buñ demee ba àjjana jigéen ñi dañuy jàng sama kër day jigéen ñi taamu.

léegi xam nga léegi xam nga fii léegi ñun xanaa xanaa ay ñoom jërëjëf Serigne Touba. déggu ma daal màggalu Touba rek lan lay gis ne barke Sëriñ Touba ajaratu Mbaye Fall